ñu ngi leen nuyu di leen jaar yi ñu ci Europe Sport ba léegi dañuy ñëw di continuer tamit di wax ci li xam ne mooy Ass Amara Diouf bi ah, lisaan yu bëri ak <clears throat> ak joueur yu bëri wax nañ ci moom d'accord ñaan ay mooy cent ay cent dix minutes cent minutes muy xale bi ñu sacrifier carrière daa ñëw ci loolu ni muy jox ci seen xalaat argumenté ci mais laataa loolu dañuy wax yéen ñi nga ci bi la page ngeen te nga bës li nga xam ne mooy cloche notification bi pour ngeen mën ko vidéo à taaral fi ci Europe sama dèjà li ñu wax ñëpp ci d' accord ñun ñëpp ci d' accord à cent pour cent ndax xam ngeen Lamine Camara talaa bi def moom jéggi na dayoo kon kenn wul nangu ñu koy sacrifier nañu proteste suñu booy bi maanaam Aliou Cissé même bu ma amul sóor qualité sax boo dee ba soixante dix mille nga dóor deux bii te comme comme ça par exemple premier match ñoo Gambie nga dugal deux bii génnee ko wala un bi mu leen Gambie dafay génnee ko ñoo Cameroun bu nga amee deux mu leen Cameroun dafay génnee ko mu xaar sax ba mu jël coup boobu rawatina ba amee sóor ay sóor qualité partie mën na mën na koo remplacer Gana Cheikh Kouyaté ñooñu ay ay cadre ñu antit leeru waaw génnee ko Nampalys Mendy franchement il faut ñu sécurité xale bi ndax du buñ baatu ci kaan bi rek gis nga ku demoon deux ans la gën a dëgër su boobaa dañ koy mën dañ koy mën soxla ñoom Pape Matar bi gën a nekk Pape Matar boobaa tamit moom dina am ñu am vingt ne ñu titulaire mag si jox tàkk ñu dem jëli coupe coupe du boobu mu jeex